alors ñaar ñu itam ci plus avant à la dernière minute ñu gis ni ki euh, euh, euh, le président assemblée nationale nak réagir alors Amadou Mam Diop tontu exactement ki na le président Bassirou Diomaye suite ak lettre bi concernant l'avis sur la dissolution de l'Assemblée nationale si boobu de lettre nag le président de l'institution euh, da nga ko daal di adressé moom ki nga xam ne que moo di Amadou Mame Diop tontu na que ni gisu si benn yoon benn objection par conséquent moom ki n'a xam ne que modi, le président assemblée nationale jàpp na ni fu mu toll nag mi ngi déglu euh, ki nga xam ne que moo Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République alors ñu daal di ñëw itam si li nga xam ne que moo di réponse bi ko daal di tonto j'ai l'honneur de porter à votre haute attention que, euh, que je n'ai pas d'objection à une procédure de dissolution dans les termes indiqués par le Conseil constitutionnel, a-t-il déclaré selon le journal L'Observateur Kenny mom ki nga xam ne que Amadou mam Diop selon si décision bi nga xam doom jóge na ci conseil constitutionnel amou dal lu mu si di wala comme lu mu si daal di yokk euh, mi dal di ki nga xam que le président de la République mais sans lui dire explicitement d'attendre la tenue de la déclaration de politique générale taw ko que ni xaar exactement la déclaration bu songo des PGOM loolu itam mbir la ndaxte si si yoon ki nga xam ne que mu Amadou mam Diop wono ko daal di ki nga xam que président la date du 6 septembre 2024, euh, vous nous avez notifié par courrier la date euh, arrêtée pour la déclaration euh, de politique générale, soit le 13 septembre 2024. Pour conclure, mon ki nga que que l'Assemblée nationale bien que l'institution république la République, à effectuer toutes les tâches ñeel li nga xam nekk moo di programme bi nga xam ni itam euh, président Mac euh, président Diomaye dénk na leen ko pour benn session extraordinaire euh, pour rappel li nga xam nekk mu di le conseil constitutionnel jox nag mankaam ki nga xam nekk mu di le président de la république mu daal di war assemblée nationale à partir du 12 septembre alors Arfan benn objection Amadou Mame Diop gisu ko si li nga xam que di cette saisine bi nga xam ni le président Bassirou Diomaye Diar fay def na ko ko.

je ne sais pas le premier ministre après où ouse êtes. na ay autorités qui xamante war nga leen mën a yégal balaa ngay tas assemblée nationale moo tax ngeen le président Bassir Diomaye Fay, euh, euh, le président de l'assemblée nationale yégal ko l'avis de dissolution de l'assemblée nationale Il hmm. ko yégal hmm. à son à son encontre mom, le le président de l'assemblée nationale il ne moom amul objection parce que a na ni que respecter loi loi à ne nañ nañ ma na ma voilà pas d'objection même même le président de l'Assemblée s'il veut même s'il fait même objection il mu def ben objection ñàkkul président da fay dissoudre l'Assemblée nationale parce que day basé sur ci constitution constitution bi moko wax ni que dissoudre point donc lolu mën na baña nek alors benen bi et eh, je crois que Fallou a un problème avec la DPG de Ousmane Sonko. Yo, hmm. yo, yow da nga am problème. Militarisme. Non non non. Jomay mo ñu le. Xama yow xama yow. Après tey minute du ko tas tey. Xama yo, yo, ak Abdou Nguer da am problème. Oui oui oui oui. C'est c'est ce que j'ai observé. Ousmane Sonko il faut que sa DPG. Xama yo, yow ak Fallou yo, Fallou yo, ak Abdou Nguer da problème ci Ousmane Sonko. Da un am problème ci la DPG de Ousmane Sonko. Je vais vous expliquer comment ça se passe parce que euh, le 13 bi la ñuy jox. oui parce que damay dégg. damay euh, dégg suba tay suñu tasoon. damay damay damay damay damay Sonko dee dem. dégg naa leen dem ba ngeen wa ay affaire de comédie. parce que yaak Abdou Nguer ay comédie ngeen di def c'est des comédies. Ah bah je suis sérieux yaak Abdou Nguer ay comédie ngeen di def vous n'analysez pas ce qui se passe amoo leen xam-xam ay comédie ngeen di def. boo leen nammee comédie dem leen ngeen bind ci casting ay event pro wala ngeen dem ngeen dem ci ay Marodi. Ah bah dem ci ay alors donc dama lay wax ci DPG bi dama ne xam les députés de Benno ne président de la République dañuy bind un décret convoquer la troisième session extraordinaire maintenant ci troisième session extraordinaire bobu dafa am ce qu'on appelle ordre du jour ñaari point ordre du jour deuxième point bi moy la DPG de Ousmane Sonko la déclaration de politique générale mom le djel def ko en dernière position xama les députés comme nañu fi ni une comme président joxuñu date pour la déclaration de politique générale légui ñun mën nañu sur suñu date bop hmm. ñun mën nañu ko mën nañu tann ah, date wi. ma ñëw ma ñëw Oui, oui. député députés, dañu ne peuvent mën nañu tànnal seen seen date bop hmm. parce que président une date. lool la wax alibi boobu la soutenir alors ñu ñëw tànn la date du 11 la date du 11 je crois que tey la 11. ñu ñëw tànn la date du 11. son côté la waroon dem. tu vois ñu ñëw tànn la date du 11 ñoom les députés de Benno Bokk Yaakaar. Non, tu n'est le député Beno Bokyakar. Oui, mais c'est ça. Non, euh, non, il veut préciser. Non, non, c'est les députés de Benno Bokyakar. Euh, l'Assemblée nationale. Non, le, bureau euh, la conférence des présidents. la, conférence des présidents. Ok. La conférence. Fallo, damalay wax lo xamantene changer. La conférence des présidents. La conférence, la conférence des présidents. Hmm. C'est Beno Bokyakar qui est majoritaire là-bas. mais mais c'est ça. Non, mais lolu mo am. Non, mais lolu mo C'est que je ne dis pas le contraire. Fallo, man limay wax ni le ko ko am ay information yima am. man li wax ni xama xama fallu mais que fay mais je ne depuis la conférence. Euh, président euh, la ah, conférence des présidents d'accord hmm. man dama lay wax lo du man dama jomb ak sénégalais di yëkëti ay baat yo xamantene lalul ci dëgg daf ma jomb man te jom dama dama moi tu la man une chose boo xamante du allez-y continue la conférence des présidents. Ah. c'est Benno Bokk qui est majoritaire là-bas. c'est Benno Bokk qui est le décideur Nous avons ñooy les décisions à l'Assemblée nationale jamono bii donc ce moment là les députés de Benno Bokk c'est conformément à ça. donc nyom ñoo dañuy la date du 11 pour que Ousmane Sonko ñëw def sa déclaration de politique générale parce que mm. président tanul date daf mm. leen bàyyi le libre choix ñoom ñu tànn alors que ñoom ñu xam que ils ont un règlement de un règlement intérieur de l'Assemblée nationale à respecter te ñoom xam nañu ko xam nañu ko ils ne l'ont pas respecté alors président ñëw ne le léegi man dama comme da ne man tànnuma date. Hmm. léegi dama ñëw ne la date du 13 xanaa coow li jeex parce que le dernier mot revient au président de la république comme ñoom président tànnul date léegi président ñëw na ne le 13 pour la DPG. mais donte ñàkkul ni que le 12 yoon moo sañ-sañ tas assemblée nationale. C'est comme si comme aussi le 12. parce que le 14 le 15 et le 16. c'est clair. mais à partir du 12 la ko yoon mais comme ko à nationale maintenant à lui de voir même le président de la la république date favorable pour tas à partir du 12 le le 13 le 14 le 15 alors, hmm. alors loolu lépp dafay constitution. Hmm yep da fay lalu ci constitution mm. donc il faut que nous ñu xamé ko noonu alors un aspect bi qui est purement politique parce que dama japp ni les deux camps c'est des politiques que ça soit le bureau de l'Assemblée nationale mm. les députés de Benno Bokk que ça soit le président Diomaye et son camp ils sont dans la politique ils sont dans la politique qui day qui li kii teggi ko du wacc ci quand Benno Yakar avait décidé de voter la motion de censure, de déposer une motion de censure contre Ousmane Sonko, mais ils étaient dans leur plein droit. Watu Nyon, droit molenne, il y a un groupe euh, Benno Yakar. même bien déposer une motion de censure, Bolen Amé, au moins 16 députés. Okay. Même un projet de loi pour une motion de censure boo un groupe parlementaire bu composez 6 députés vous ngeen déposer donc nous avons nañu lu ëpp sommes ñoom Abdou et compagnie Moi, tax déposé dem déposer motion de censure que l'autre yëpp yoon maintenant l'autre camp comment elle va comment il va réagir le camp de Diomaye Moi, tax mu une troisième session extraordinaire jox a ay ordre de 10 ba pour bloquer la motion de censure bloquer la motion de censure ma vous la une information ah est-ce que vous savez pourquoi le pourquoi les députés de Benno bokoyakar ont choisi la date du 11 pour la DPG est-ce que vous savez ko hmm. du question ni dañ ko bëgg def bala bala le 12 ñu tas assemblée nationale bi dédét déedéet xam nga lan la ci la date du 11 hmm. les députés de Benno Bokyakar ont dañoo woote dañoo Ousmane Sonko pour ñëw pour mu le 11 hmm. supposé que dañ ko woo pour mu ñëw def la déclaration de politique générale il faut que sénégalais comprendre le géopolitique politique. gis nga Ousmane Sonko bu ñëwoon tey la date d'aujourd'hui di 11 pour def sa DPG ñoom nous ñu DPG Ousmane Sonko dañ ko piège ba jàpp ko Ousmane Sonko day ñëw sur la tenue ni que man damay dem assemblée nationale pour def la déclaration de politique générale mais lu muy fekk assemblée nationale du loolu du loolu lay doon motion de censure moo ko fay moo ko fay xaar est-ce que gis nga piège bu piéger, Ousmane Sonko pour aujourd'hui le 11 dañ ko bëggoon na ne ko légui ñëwul def sa déclaration de politique générale ñun ñu lay xaar Ousmane Sonko bu avons assemblée nationale ñom dañuy ëlbati déclaration de politique générale bi daal di la motion de censure parce qu'ils sont majoritaires à l'assemblée nationale lu ñu bëgg mu jall moy jall dañuy jël DPG Ousmane Sonko tegee ko nous ñom ñi doon woote devant les sénégalais ni que ñom Ousmane Sonko dafa wara ñëw fofu Ousmane Sonko bu ñëwone fofu ils vont voter majoritairement à l'Assemblée nationale pour dadi di DPG Ousmane Sonko tégué ko nële dadi di sen s'en motion de censure dadi dissoudre le le le le gouvernement Qui saas qui qui jamono boobu moo tax c'est un jeu politique Fallou c'est un jeu politique il faut pas parler de l'amateurisme comme yo ak yo ak Abdou Nguer no len koy défé xawma ndax sketch ngeen bëgg créer lan mais c'est tellement comique ce que, ce que vous, vous, vous, faites. C'est tellement comique. nit dafay analyser dafay gestu, nit dafay gang bu subaa li ngay wax sénégalais xamni que li ngay wax ni que wadi de li muy wax ni dëgg mais nga ñëw di wax ni suba bongo Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko. alors c'est clair exactement Manikon, ni kon li dit amour ne Diop répondre exactement euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kenn jël na acte si euh, saisir bi nga xam ni euh, na suite ak avis.